Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Taysiroul Wousoul bu Oustaz Alhaji Thiam ñu gën koo xam ci Moustapha Gueye 2 al alimul allama abonné leen ngeen jotin mboolemi xibaar xam sa diine rek moo ko tax a jóg ak xew-xewu jamono kon mbokk ñu ngi lay ñaan nga abonné te nga bës cloche bi an ñu bind j'aime bi nag bësal fii nii ñu après nga activer cloche bi ni mën nga tamit wax sa xalaat fi ni ci commentaire yi li nak do ci fay dara te dina tax vidéo buñ dars bi dars bi ci xikam benn ataaya ni ci àndal oustaz Ousmane Ndiaye fi ci Taysiroul Wousoul TV muy télévision boo xam lépp loo xam ne yéen koy soxla ci diine lislaam mu ji taxaw ngir jottali leen ko ak lu aju ci actualité ak bépp fànn xam-xam kon nag ma ngi leen di ñaan ngeen abonné te di lazem te di commentaire lépp lu ngeen soxla ndaw tey sur Rossol TV orienté leen ci na ngeen di commentaire indi seen commentaire foofule su ko defee ndaw jub takkaayu

وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أمناء دحوته وقادة ألوياته رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وربي الله عن من الأجلاء وعن كل واقف بباب الله بصدق وإخلاص kulli firqatin aw tariqa aw taifa يا أئمة الشيخ عذر لنا بهذا المقدر فلتكتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر mbokki góor yi jigéen ñi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm ak tawfiq ak taysiir ak sutura sax dàq di ko sàkku ci yéen yàlla muy borom sa kum ko defal nga am ko yéen ñu ko boole su ko defee ñu ngi dellu si ata yéen na ci kitaabu hikam yim na taawullahi sakandari ñu ngi jëm suñ ñaareelu hikma hikma bin génn nag moo doon xam ne ci leen taxawoon ijtihaaduka fi ma dumina laka wa taqsiruka fi ma talaba minka dalilun ala intimasi basirati minka mu bi ngay góorgóorlu ci li nga xam ne moom la la yàlla garante ak gàttanlu gi nga gàttanlu ci li la yàlla sàkku ci yow baa ngay li muy tekki daal mooy sa gis-gisab xol moo avancé wu rekk nag xikma bi ci topp mu ne laa yakunu taaquru amadil atama ilhaayi fi duwaay mujiban li yasika fa wa damina laka al ijabata fi ma yaxtaaru laka laa fi ma taxtaar li nafsik wa fi waxti lazi yuridu laa fi waxti lazi turid mu ne laa yàkku na bu mu nekk taaqudu am ma di laa taa yéexee jox la ak may maa ilaay paak fekk na yaa nga tancamlu yaa nga sax fi duwaa yi ci ñaan mujiban di waral li yes si ka sag naagu foo moom yàlla subhaana wa taala damina lakal ijaabata moo la garant ak nanguk ñaan fi ma yaxtaaru laka ca lam la tànnal laa fi ma taxtaaru nafsika waaye du la nga tànnal sa bopp wa fi waxtu la ci yurid ak ci waxtu nga xam ne moom la bëgg moom yàlla laa fi waxtu la ci turid waaye du ci waxtu nga xam ne yow moom nga bëgg iskay ndew fekk ma bu rafet mu naa taaw laa ne bu mu nekk mukk yéexee jox la ak may ànd ak na yaa nga sax ànd ak na yaa nga tàncamlu ci ñaan muy waral sag naagu maanaam yéex a gis ñaan gi ngay ñaan bu mu waral mukk sag naagu ci yàlla ndax yàlla kat moo la garanti ak nangoog ñaan ad'uuni astajib lakum ñaan leen moo may leen kon yàlla moo garanti képp ku koy ñaan la dana la nangul waaye nag sew sew bi mooy moo la garanti nangoog ñaan te moom yàlla lam la tànnal du yow la nga tànnal sa bopp ndax amaana yow li nga tànnal sa bopp gënut si yow comme ni ko alquran waxee wa asa an tuhibu shay wa huwa charun lakum wa asa an takruhu shay'an wa huwa xayrun lakum wallahu yaalamu wa antum la taalamuun amaan na ngeen bëgg dara fekk aw xay la ci yéen amaan na ngeen bañ dara fekk ne loola moo gën si yéen ndax yàlla moo xam mu jëg mbiri te yéen xamu leen ko kon yàlla moo la garanti nangu ñaan te la tànnal du la nga tànnal sa bopp waaye garanti ko tamit ca waxtu wa nga xam ne moom moo moom la bëgg du ca waxtu wa nga xam ne yow moom nga bëgg moo tax hikma boo xam ne hikma bu am solo la kenn warta toog daal ni ñaan naa yàlla yàlla mayit ma ni yàlla day ni yàlla toll ni ñaan leen ma may leen dëgg-dëgg ku ko ñaan may de la boo gisut ñaan gi rek xamal ne am na fu ko yàlla def waaye ñaan na yàlla moom may na la bul wax mukk ne yàlla ñaan naa ko mayut ma soo ko defee Ibrahima alayhi salaatu ne la nga jotoon a ñaan yàqu na te yee yàlla sax ku dolee gàccaal wala cheikh al islam cheikhul kamin maam Baay wax ci ruwul adab ne isa talabta matlaban adimtahu fa dayruhu yadri wa ma daraytahu yatfuhu ma yadru lutfan minhu fa taqdullah mu ne su fekkee ne yaa ngi wut dara ci yàlla nag gis ne la ngay wut sax amoo ko xamal ne daal am na lor gu nekk ci lool yàlla nga koy puus ngir am ñëwenti ci yow kon bul tumaal mukk suñ borom moo wax ne ñaan leen ma ñaan naa ko mayu ma la mayut ma soo ko defee rek yàlla daal la gàccaal te yéen daal na daal salaatu wasalaam wax na ci hadiis ne amul kenn koo xam ne daa ñaan lu dul ne ñett yi dana dajee ci moom benn rek yàlla li ngay ñaan mu jox la ko ci saa si nga gis mbaa rek mu dencal la yool ba ma yawmal qiyaama mu gën ci yow mbaa rek mu soppandalee ci lu ñaaw li mel ni la ngay ñaan kon kay ku ñaan yàlla rek yàlla yàlla may na la dëgg-dëgg waaye te na ko tànnee ak ci waxtu nga xam ne moom yàlla sa la ko bëgg te soo war ne na taxaw ñi ngi nag ñaan ak sàkku ndax benn la xam nga duwaaw buñ ko waxee mooy ngay toroxlu def zullub inki inkisaaru ci soroon sa borom subhaanahu wa taala sa xol bi ak ci yàlla loolu mooy ak ñaan gannaaw boo tuubee say bàkkaar ak say mooy yàlla waaye tax ripp ñëw taxaw ci kanam borom bi tudd ko sa làmmiñ ca xol ba moo ma nga aju ca leneen ajuwut ci yàlla amoo ak toroxlu sa kanam borom waaye dëgg-dëgg nag loolu du ñaan ñaan mooy ngay toroxlul sa borom loolu mooy ñaan kon daal képp ko xam ne ñaan na yàlla rek yàlla moom garanti na nangu ñaan waaye ca nam ko tànni ak ci waxtu nga xam ni ca ko bëgg te léeg-léeg rek wax laay ndeysaan yàlla sax dana la jox fekk daf laa xañ léeg-léeg mu xañ la fekk daf laa jox wallaay da loolu maa taaw laay Iskandari wax na ko ci biir ci biiram ne rubbama ataaka fa mannaaka rubbama manaaka fa ataaka léeg-léeg yàlla dana la xañ fekk daf laa jox kanaa jox gi kay fay jëlaat rek moo tax xam ne yàlla lu baax la damay raatu naa prix fii day ne primé dafa am benn waay boo xam ne daal ci Saudiya dafa bëggoon dem daal def benn voyage rek foofu dëkk boo xam ne Lubnaan boo xam ne daal bu fa demee dana fa am ab liggéey boo xam ne bu bu rëy rëy la waaye yaa ji daal nanguwul rek bëggoon mu dem bàyyi ko kenn mu ne moom daal mu wàcc ko ay yoon mënta dem. beneen yoon daal bi mu ko waajee nag ndekki di naxanteeg yaay ji rek bee mu jigi yaay ji bàyyi ko mu nag mu war a dem nag mu ne moom daal for mu tëdd rek biddanti avion bi nag war a départ mu ne bi mu yeewoo daal xam ne ni des ci heure bi bëreetut mu jël ab rek ne waa ji yow daal loo man rek defal mën naa àgg rek man loo ma fayee ku ma fay la mu ne waa ji nag daw lu mu man rek àgg ak moom ci aéroport bi moom daal bi ñu dugg aéroport bi rek dégg na avion bi départ na aji daal di toog nag daal di jaxle tànke boobu jàpp ko nag far mu toog fu mu toog rek far nelaw nelaw daal naka mu yeewoo rek dégg coole ci biir aéroport bi mu ne àlla ñu ne ah ndeysaan avion bi départ léegi daal xibaar moo dikk na ne ñoom ñëpp daal mujj neen génn àdduna ndax avion bi dafa def soog kenn muccut aji daal daal di toog rek daal di sant yàlla xam ne dëgg-dëgg yàlla tañ na ko waaye daf kaa jox kon dëgg-dëgg ab saalit noonu la war a def lépp loo wut ci yàlla soo ko gisut war tax nga naagu moo tax inaa taaw laa ne laa yakunu bu may ngi daal ànd yaa nga sax ci duwaay si ñaan mujj di waral li si ka sax naagu foo moom yàlla demina laka moo la garanti ijabatu nangoog ñaan fi ma yaxtaaru laka ci lim la tànnal laa fi ma taxtaaru li nafsika waaye duut la nga tànnal sa bopp wa fi waxtu la si ak ci waxtu nga xam ne yuridu moom la bëgg moom yàlla laa fi waxtu la si turid waaye du ci waxtu nga xam ne yow moom nga bëgg te am na hadis boo xam ne faq de hadis nga xam ne daal salaatu wasalaam ne jàmm bu baax bu fekkee ne dafa ñaan yàlla jibril daf naan yàlla sa jaam diw sàngam may ko jox ko li ñaan yàlla ne téye leen ko ak ak lami ñaan téye leen ko bu leen ko jox nangu naa ko nag waaye téye leen ko ndax man waxam ji muy wax ak mun muni gi muy mun ak ñaan gi may talal ñaan dëgg dëgg waxam jooju dama kaa bëgg a déglu bo ne boo xamee bo ab jaam boo xam ne nag bu safaanoog mbaax la bu ñaanee borom borom du gaaw leen jox ko lu muy ñaan man bëgguma déglu ak kàddoom ba fa sax nit ki war a def ndànk ne dëgg dëgg du ne loolu taalal sa loxo rek yàlla jox la yow nga am ak mijaaba wala yow xaritab yàlla nga wala am nga noo day sa yàlla waaye fekk dee mën naa nekk istidraaj te yow sax yëgoo ko tax doy waar hikma bi ci topp ibna taw laay Iskandari ne laay sakki kan naka rekk waaye bu mu la sikkiloo fil wax di ci diggee adamu wuqooyi ma huu di ñàkk tàbbeeg lan la dig wentaay na doon taraat ñekku na zamanahu jamono ja loolu laa na ngir bu mu nekk zalika loolu xadaan di ak wàññeeku di jam ci basiratika ca gis-gisab xol way maa doon tey fay li nuuri sa leer sa a sa xol rek mu ne bul sikk rek waaye ci dig boo xam ne neen la ko moo xam ne ci tariqatu ilham la wala wulli yàlla moo la ko dig mu ne loola su fekkee ne lan la dig xamut tàbbiwut donte dañ koo wax ne ci jamono sàngam la ci bés sàngam la fi koy gis mu ne boo ko gisul sax bu mu la tax a sikk dara ci yàlla mu ne lu tax mu wax la lii rek ngir bañ rek mu yàq sa gis-gis mu fay sa leer xol ndax nag ndax it nag dëgg-dëgg léeg-léeg nga sikk léeg kat nga am lu la wax lu la benn wëli yàlla wax mbaa benn ilham boo xam ne dikkal na la jamono ba ñëw te lan la wax gisu ko gisoo ko fekk ne moom lam la noonu wax daf ko aj ci benn sart sart boobu bu dajee wut da gis ne man naa nekk ne moo tax loola jotoo ko Seydina Umar ibn Xattaab rahmatullah alayhi dafa dajeeg benn benn waay ne ko ayow daa sa góorgóorlu gi jaaxal na ma rek ak li ngay mel ni lee dëddu àdduna ni te yow kat yow yàlla boole na la ci asartu mu basri ne bil janna kenn ci ña war a dugg ci aljana ah kon yow lu waratu ni ngay def nii mu ne ko mën naa am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax loolu daf ko at ci benn sàpp ci samay jëf te man xaw ma ci ban la ci su fekkee ne sàgganaa nag yaa caaral nag ah boobaa nag dëgg-dëgg bu ma gisut li ma dégg sama bopp laa yedd du ma ko teg kenn ya jaal Muusaa alayhi ak Haaruun li xamee ne Firawna sol na leen lool tooñ tooñ mu jéggi dayoo dem sax ba woote ak ilaahiyatu ñoom sax ñu ñaan ko yàlla na rabbana atina sana amwalihim wasdud ala qulubihim wala yuminu hatta yarona azaban alim ñu ne yàlla nag ñii li ngeen jox ci ay moyen yëpp ñu ngi la ko yoon yi waaye essentiel seen alal ñii duñ gëm lu ne dëgg-dëgg gis ngeen buggal moo xam ne mu métti la yàlla ne qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tatabia sabila alladina la yaalamuuna waaye fin ñaanee lii ak suñ ko gisee ñeent fukki la kon moo tax mu ni la bu fekkee ne dig eh, ngeen la dara donte na jamono ja ràññeeku na bu tax sa leer a gis-gis daal di faru ngir rek bu ñaaw njort ci yàlla waaye bu ñaaw njort ci uli yàlla yi moo tax mu ne laay sakki ka nag rekk waaye bu mu la sikkuloo fil wax da ci digee adama wu qoin man huudi ñàkk tàbbeeg lan la dig wayen taaye na donte ràññeeku na zamanohu jamono ja delaaya ko na ngir bu mu nekk waay zalika loola xadda xam di wàññi di jam fi basiratika sa gis-gis weex maa dan tay pay di nuuri sariratika sa leer ak sa xol bi ne ina taawulaa yi secondaire mu ne hikma bi ci topp isa fata bu ubbee la ka ñeel la wijatan ak prox ndoll min taarafu ci présenté la jëmmam ja min taarafu baale waaye bul faale maa ànd alqalam mu néew xamal ko sa jëf fa innahu naka moom maa fataalee ko birul na ko ilaa wa huwa dul naka moom yàlla yuridu dafa bëgg rek an yataarafa mu xam lu ilayka jëm na ci yow. alam talam kanaa xamoo nag ni an na taarufa naka moo ko rotal ci yow wala amaana te jëf yi anta yow muudiha ilayha yaa ko joxe mu jëm ca moom. wa aynama tahdihi ilayhi waa naka nga mën a comparé nag di tollalee li ya loo jox mu jëm ci yàlla. naam mu muridu alayka loo xam ne yàlla moo ko rotal ci yow mu ne fekkee na yàlla daf laa ubbil benn prox ndoll pour présenter la jëmmam jë teggil la kii raaye nga janook moom mu ne bul xeeb mukk bul faale tamit sa jëf tuuti ndax yàlla kat loolu mu defal la defu ko rek lu ne daf laa bëgg a présenter moom mooy kan kanaa kon xamoo kon nag ne xam lu gi luy jugee koo ci yàlla la ñëw ci yow te jëf ji moo jugee koo ci yow jëm ci yàlla léegi noo bëgg a tollalee luy jugee ci yàlla ñëw ci yow ak luy jugee ko ci yàlla luy jugee ko ci yow jëm ci yàlla loolu ndax mën naa tolloo bi maanaa mënta tolloo kon nag bu fekkee ne yàlla ubbi na la benn porte ah pour présenter la jëmmam ja bul faar yow su jëf ni yow hikma bi ci topp mu ne te naw waat wutee na ajnaasul ahmaali xeeti jëfi bi te nawuy waari daati ahwaali ci wutee waari daat nga xam ne mooy rot ak xaal ci xol mu ne xeeti jëf yi dafa wutee li ko wutale nag mooy comme waari daal di wàcc ci xol bi moo xaal yi ndax léeg-léeg nga sawar ci julli lool léeg-léeg doo sawar ci julli yow moom ci koor ngay sawar léeg-léeg mu xërtal la nag ci joxe léeg-léeg mu xërtal la ci euh, haj màkka léeg-léeg mu xërtal la ci jàngal quran wala ci tudd yàlla léegi nag lii def loolu mooy waari daal yi wàcc sa xol bi ni mu wutee moo tax jëfi zahir yi moom tam di wutee foofu nag soobu ci yoon la war a def ndànk nag war a toog bàyyi xel léeg-léeg ñu xërtal la ci julli boo gisee ne am na keneen ku xërtal ci leneen nag nga bàyyi fa yow lan la xërtal dem wuti leneen wax dëgg yàlla boobaa ñàkk xam rek la lay ak problème la lay indil ak tekki li muy tekki mooy ñàkk xam gi nga ñàkk xam yàlla rek la nag dëgg-dëgg wata naa taaw laa nale tanawaat yi bi tana wuhil waaridaat awaali ci wutee waaridaat yi xam ne mooy a axawaal yi nga xam ne mooy wàcc ci xol bi ikma bu mu ne al ahmaalu suwarun qaimatun arwa ay formalité la ay melo la rek qaimatun yoo xam ne yu taxaw waa arwaawa fekk seen roxo yi koy doxal wujudu sirul ixlaas fiha moo ñu xam mbootam sellal yàlla mu ne jëf yëpp ay formalité la moo xam julli la moo xam xoor la moo xam jox asaka la moo xam aj màkka la ak lu mu mën a doon ay formalité la yoo xam ne roxo nga koy doxal mooy mu xam mbootam ak sellal su fekkee na nag ne yaa ngi julli te amoo ak sellal wax dëgg yàlla nag yow xamagoo xamagoo julli ba fa nag li na war a taxaw nag ñu bàyyi xel ne dëgg-dëgg suuf yaa ngi kii nag ak fuqaaw yi du benn xam nga faqihu bi nit ki bu ñëwee di julli moom lim gis ak li mu xool mooy ci li feeñ ndax yow ba ngay ba ngay julli jàpp nga soo jàppee ndax jublu nga xibla rakk bu neex wax jàng lan ca war a jàng bat ya su ya bat na bu li yëpp dajee nag mu ne yow fa salaatu ka sayhun sa julli gi wér na waaye nag su yànk mi nag moom li yëpp da ciy dooli nag ndi xool ndax yow ba ngay julli am nga ci ikhlas la am nga ci sellal ndax dellu nga ci yàlla ndax am nga ci sa toroxlu ndax julli gi sos na ak mbaax gannaaw gaa ci yow su fekkee na li yëpp dajee na ci yow nag mu ne ah yow de sa julli gaa ngi doog a wér su fekkee na dajee wut nag sa julli gi wér ndax daf naa amul ixlaas ndax ixlaas mooy tax mooy sàpp bi tax nit mën a jaamu yàlla te loolu la yàlla wax ne maa umiru illa li yaxbudullaha muxlisina lahu diina hunasaa digaluma leen lu du ngeen jaamu yàlla waaye luy sàpp ci ngeen jaamu yàlla mooy ngeen sellal dii ñeel yàlla subhaanahu wa taala ixlaas nag dëgg-dëgg comme ni ko ma lay cheikh al islam alaaji ibrahima ñi si waxee ay ay ay la xam nga ixlaasul hammatu naas ni mooy ñuy jëf lépp loo xam ne ndigle la def ko te yàlla tax tere yi ñu bàyyi ko te yàlla tax booba seen bakkan du ci am benn ngistal duñ ci am benn njëggatu buñ ci amee ngistal mbaa ñu am njëggatu loolu nekkatul ixlaas bu ci muccee nag loolu ixlaasul hammatu naas ñi la ixlaasu ñoom ñooy li ñu def te li ñu def bëggun ci ab yool bëggun ragalun ci mbugal bëggun ci àgg ci benn maqaama waaye dañ koy def rek ngir jaamu ngir sopp yàlla maanaam daal dañuy jëf ci lu amul sabab lu ne yàlla daal moo xeeloo rek ñu jaamu ko ña ngi koy ñoom liggéey leen yelloo ña koy def gisu ne xeeyoo leen ci loolu benn maqaama waaye dañoo seedewu ne lii xéwalal yàlla la yàlla daal moo ko askan ci ñoom rek ngir ngëneelam loolu mooy ixlaasu xaasatu nit ñi xaasatu xaasat nag mooy VIP VIP nag nga xam ne ñoo gën a kawe martaba ñoom seen ixlaas mooy ixraaju siwaa fi muamalati xaqi wa nafsuka siwaa bi an tara anna al amala min allahi ila allahi billahi wa anta la madqala laka wala maxraj laka wa alam anna allaha yuhibbu almuxlisina mu ne ixlaasu xaasatu xaasi nag mooy ñu génnee lu dul yàlla si jëflanteeg yàlla te seen bakkan ci siwaa la bokk maanaam lépp lu ñuy def ñu génnee ci mbindeef yi te jàpp ne seen bakkani ci mbindeef yi la bopp bokk lépp lu ñu def yàlla tax ñu koy def du nit ñi waaye du ci seen bakkan yi maanaam moo ñu gis ne jëf yi ci yàlla la jugee ko ci yàlla la jëm ci yàlla la ñeexal maanaam ñoom daal amuñ ci benn dugal wala benn génnal waa moom walaa yuhibbul dëgg dëgg yàlla bëgg na ñuy sellal moom lañu daaw taaw laay doon wax nag ne jëf yi su warul ay formalité la xaayimatu ñuy taxaw waar waar woo ya koy doxal nag wujudu suril ixlaas fii moo ñaam am bootam ak sellal kon nag ko amul ak sellal te la ngay def dëgg-dëgg wax dëgg yàlla amagoo euh, roxo ga doxut loo tax même ci mbiri àdduna yi noonu la tëddee mbooloo moo gis daal mu taxaw su sellu amul sellal amul ah da ngay jékki-jékki rek ñuy tojante bopp ak sànnante ay xeex mbokk yi kon xam naa su ko defee ñu taxaw li fi la ci rafet yàlla lépp loo xam ne jumtu ngeen baal ñu xam ne mu ngi jóge ko ci jàmb fasaadi bu te bu gàtt lu mu a firi waxu naata ulaahi سيلوك سين قرين عثمان جاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته